pour jàppale mbir yëpp rawatina hectare yi nga ne mooy mbiru ndaw bi lay jóg ca kaw nag di la wax ne juste euh, Rane Diop mooy sa tur dëggantaan wala wala wala turu làmb ji mooy Rane Diop nu mu demee noonu. waaw raam bi sama tur dëggantaan maanaam làmb ji lan may woowee loolu quoi. ok te fii naan raam boo xam làmb bi nag mooy raam ok surnom la quoi la. dafa am mbër mu daan bëree bu tuddoon Rane Diop wala. non non demeewul noonu sax si nga sama tur maanaam fii mooy li ma la nee naa doo tudd sax raam fii boo ñëwee même ba ba aareen nii Paul ñi ma xam dëgg Paul la ngay dëgg ñi naan Paul Maurice ñi naan Paul mooy loolu ndax lan fa dara jamonoy mbapat fii xam nga laa mu ma daana dugg fii danaan toj sabar ak lu mu mënti doon yàlla xam na te samay boobu tamit na lañ ko seede muy jaaro géej gi nga xam ne ñu fi laa dëkk def naa fi maanaam lu nga xam ne loolu dañ ciy ñëwaat loolu dañ ciy dellu si léegi kon bi ngay mbapat Paul Maurice nga daan wuyoo non wuyu ma noonu raan ay lubi coor mais gars yi ñoo naan maan ay Paul ak affaire yooyu noonu nangam nax style bi moo taxoon parce que bu ma daan ñëw da ngay defee ne maanaam séeréer mooy dugg si làmb bi ok ma daan ñëw isibu séeréer laa daan parce que booy bëri fii sax xaaj bi yëpp maa tax ñuy ñëw mbapat mu demee noonu. dañuy changé dañuy changé style. waaw mën nañoo wax loolu. parce que loolu ci Range Job lañ ko copié. waaw lu wér am na booy xam ne ni ay royukaay la fii samay frères yi nga xam ne nii samay booy yi nga xam ne nii. Mhm. ñëw fi. Mhm. but ba but yàlla xam ne loolu ay xale yu daan taw sax ñëw. Mhm. raan nii nang man affaire bi ma xam sax ni mu may ndigul. billaay wallaay. léegi pour ñu bañ a guddal wax bi Range Job ban année la commencé bëri ban année nga commencé takk ngéem di foowee bëri. di foowee bëri mën naa ne mën naa ne ba ma juddoo la tax ma ne la ba ma juddoo la maanaam damaa nekk sax dëkk bu nga xam ne nii rawat na maanaam kër gi man ne fii nii muy maanaam sama kër papa samay maam ay mbër lan woon samay papa ay mbër lan samay frère ñëw doon ay mbër kon man maanaam ngembali maanaam foruma ka de damaa juddu fekk ko ci kër gi jël ko appliqué ko maanaam gëm ne dama war a mën a doon mbër parce que samay maam samay papa kon dreetu lamb mooy daw si man quoi. waxal waaye da nga judd fekk ngémbali ci kër gi yow ngémbali foroo ko ci biti da nga judd fekk ko ci gàlle bi parce que say maam dañ daan bëre say papa di bëre say mag di bëre yow nga ñëw fekk ngémbali ci kër gi jël ko takk dem dugg ci lamb ji. oui frère dëgg la noonu la demee nag affaire bi ma ñëwee dama ñëw fekk kat te ma ñëwee boo gisee tax mu neex dama ñëw fekk fekk samay mag. di ma bokkal day bàyyi sama mag ñoo xam ne nii maanaam frère la papa sama papa ñoo bokk wala souvent seen yaay ak sama yaay. ma gis leen ñoom tamit xam nga ñu ne man ma doon tànk di ne seen biir di jàng di jàng ba toll au sommet bu nga xam ne man ak ñoom ñu bëggante rab billaay ñu bokk même milieu làmb bu ñuy bëri mbokk même poule bokk lépp waa benn léegi nag looloo ma a ñaax te bi may njëkk a di bëri sama mag boobu noonu ñu góobal mhm. moo fekk ma toog nii mu ne ma hey jugal bind naa la si làmb bële mbapat bële ci boobu folotan sax laa abañ ak benn set làmb jooju maa xam dee jël Ah, yow yaa ko jël sa grand frère wala fekk nga toog rek mu ne la raan raan bind naa la fee kaay bëre rek nga nga wag sa tubay jël sa sër rek dem bëre ji daan ñëpp jël ko woyu noonu la demee nag jur bu may njëkk maanaam xalaat ne takk naa ngeen jur boobu noonu la njëkk après nag ci laa commencé xam ne lii nii ci laa commencé xam ne lii nii man dama see bokk ko wax te nit li nga bokk raw xaar ñu woo la si li nga bokk waroo xaar ñu wala ci da nga war a ñëw jël li nga ci moom waaw noonu la demee nag parce que li ma moom moom ala kulli alim dama koy jël quoi loolu loolu dañ ciy ñëw après mais nag xam nga la mooy seen xam nga la mooy seen problème hmm. yéen boo leen mbapatee quelque part bu ngeen ñëwee di leen laaj mbapat bi fan mën ci wax parce que léegi ay naa ne caaray géej ci xoolal waaw on est yaa ngi dégg mën naa ne yéen ñëpp ay mbokk ngeen yi ñëpp mooy loolu mais nag mbapat bi na la daan demee sa diggante ak ñoom ñoom Gérard fii sa diggante ak ñoom Brise sa diggante ak ñoom Baye Talla ñoom ñoom hmm. euh, euh, euh, Papa Kane numéro 2 tu vois nan la fa daan demee. waaw mbapat yi moom ay ay ñoom Jos numéro 2 Fallou. mbapat yi moom danaan métti torop torop torop torop. yéen seen biir. billaay wallaay dama dem daan bëri ay mbapat yi nga xam ne nii grand bi da daan tàng cër. mais boobu jamonoy booy la woon quoi xam nga boo doonee xale moom affaire ba xale rek ngay demee ko tout maanaam sa gars yi ñoo la ñor quoi caare du la ñor feneen du la ñor mhm. affaire daal di ba doon koñ ak koñ mhm. mais boo màggee nag si ngay xam ne maa affaire bi doonu koñ ak koñ affaire bi dëkk ak dëkk la quoi benn instant parce que doole te lu kenn man ñaar ak dàq quoi benn instant léegi nag dañ daan la daan nekk tey buñu ne Rane Diop ak diw gars yi ne combat ngi noonu yan genre a la daan nekk waaw souvent nag combat yi daal gën a doon ay combat soog man ak brise de mer numéro 2 la woon quoi bii nañ ma ko dañ ma ko dee ci suuf wër na yàlla xoolal li tax ma lay cuxu nii dañ ma ko dee ci suuf ma ne ran ak ak brise de fu ñu mbëkkante woon beneen affaire ngay gis oui dëgg la noonu la demee parce que ñoom ñoo ma jiitoon si làmb fuuf. Mhm. ne si mbapat tamit xam nga. Mhm. ñun ñu leen di supporté si lu ne nangul leen li doon. Mhm. ba yàlla def nag ñun tamit ñu ñëw. fekk leen si géew bi damaana di bëri ñoom ñuy doon ay combat yoo xam ne masaan am seex danga naan arène combat arène moo am billaahi wallaahi wa taalaa te boole si int boobu noonu maanaam li nga caare yi dafa doonoon ay mbëri nga xam ne nii maanaam ñun ñi sama génération depuis sama maam la woon ba sama mag ay bañkat lan woon doo tax mbapat bu daanam da daan gis koñ bi jóg koñ bi jóg a bi door koñ ak koñ sa waay day resté entraîné boor bële man ma sama yoon nii ku si mel ne sa ruux liggéey jour si waaw ba dañ daan daje matinal man ak moom treize place mhm. ku si ne maanaam jur talaase wu bi quoi pour suba lamb bi mhm. affaire mhm. da daan métti torop seer da daan métti loolu man dégg naa loolu dañ xoolal damay waxtaan ak yow di waxtaan ak keneen ak keneen mais damay toog ni difa mu ne ma grand bi ma ne ko naa mu ne ma bapat daawuñ mayante dara nga diw buñ daje woon combat da daan métti ay combat la daan nekk waaw boo gisee loolu nag mooy maanaam moom daa bay waaram man ma bay sama waar mooy maanaam moom dafa dem ba benn moment moo xam maanaam dafa të mhm. léegi man tamit noonu ak mën a bëree torop déggoo champion barki alxuraan doon sama frère ñoom ñëpp billaay walaay talaay dañ daan bëree da daan dëgër këj métti mhm. combat bi da daan doon kon combat waaw combat bu nga xam ne nii seex man bëreeguma sax combat arène bu mel noonu combat yi ma daan bëri mbapat fii ma daan bëri mbapat seex boo mosaan ñoo taxaw ngay defe ne arène laay bëri billaay wallaay taala parce que yàlla dafa def xaw ma lan laa tëli de mais du bëree ko dit nga da nga judd kay fekk say maam ak say papa di bëre yow yow boo boo mënul bëree tooñ boo mënul bëri tooñ mais nag benn instant dañuy xuus tuuti ah euh, mbapat bi sa combat yaag Brise de choc la daan nekk mais aussi kan aussi kan nga ci mbëkkanteel un jour tournoi combat nommé mu métti lool. mu métti lool lool lool fii jaare waaw bëri naa fekk Brise de Mer tamit benn combat boo xam combat spécial ak tournoi tamit métti na trop mhm. ak Lamine Molo benn rakku colifay de Lamine Lamine Lamine moom sama frère moom tamit billaay wallaay amul sens ci arène bi xoolal ñi ko xam ci arène bi dañ naan kii du dara mais ñun ñu ko xam ba muy mbabat xam nañu booy boobu kat la waaye mbër kaamin billaahi yàlla rek a tax may wax maanaam di caare mm-hmm. lenn lan amul rek may maanaam ay moyen ñu taxaw mm-hmm. mais billaahi bu amoon ñu nu taxaw kon niveau bi ñu ne nii jug nañ dox bi yàgg parce que ñun ban dalay raam yàgg na waaw ah, mais nag attention caaro yi dafa am cër ci làmb parce que bu buñ ne caaro yi ne Issa bu buñ ne caaro yi ne Khadim Ndiaye Baye Mandione euh, euh, Khadim Ndiaye numéro 2 yaa ngi may dégg wàccaat ci suuf ñëw ci ay lan ah, ah, Ahmed Deme Ousmane Diop ah ak keneen ak keneen ak keneen non mais caaroy féetewul ginnaaw ci làmb bu ñu waxee dëgg rek. dëgg la waaw mooy li nga wax bu dee tur si làmb caaroy am na. voilà mais bu dee wàllu moyen laay wax. parce que wàllu moyen bi mooy lan mooy maanaam fii ku fi ñemee ku ne dañ laa dee. Mm-hmm. tey jii nii dëgg la ñun caaroy lañ dëkk. Mm-hmm. ñun mënuñoo maanaam am lu gën a rëy caaroy mm-hmm. te ñun bu ñuy faay caaroy moo tax ñuy faay. billaay wallaay parce que leneen. danañ xar sama tànk tubéy di yeewu xoolal géej gi ni muy diggante nii salle musculation mais da ngay dem ba billaay wallaay salle musculation loo fay sax doo ko am. ñu lay dimbali mooy sa gars yi nga xam ne ni ñoom ngay àndal. Mm-hmm. billaay wallaay ñoom ñoo siy taxaw la jàppale. te loolu maanaam xam nga jëmul kër parce que gor boo daggee benn cëram rek mën nga koo rey boo te loolu jëmul kër frère da ngay mujjee obligé billaay boo amul boo amee combat rek ngay dem saal mm-hmm. te li ngay demee saal yaa koy dem liggéey liggéey di ñëw billaay yóbbu saal